Salut les amis des sportiviers de Baba Show. Merci encore Gaël de la confiance en voler. Merci de à liker, merci de à abonner. Merci également de baisser les commentaires. Un hein. plaisir renouvelé, les gars. Et chaque fois, des partager l'information. Inbox sénégalais. Il fait folle maintenir qu'en 14 régions du Sénégal. Roukhoukhadi, Gokhadi, ñu ngi leen di jaajëfal. Ñu nekk également ci lal hôpital ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu rek jàmm. ñu nekk ci kaso yi nga xam aussi erreur judiciaire gars yi gi ñu def moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot. ñi dëddu àdduna suñu borom xale naa jëne fi daw si gars yi te yéexee ñu en avance ensemble dans la magie de Baba Show et des Sport TV. L'actualité on continue actualité bi nag gars yi ñu fas donc abibey situation wax également ci Youssouf Sabali, ak ki nga donc ak Pathé Ismaïla aussi Sékou point mercato bi lan moo ci xew Nous ñu fas yéene ko wasaare ànd ci ak mais aussi gars yi demain le championnat il di commencer donc inshallah, allahu rabi on va commencer les lives sur TikTok dans notre chaîne TikTok eSport TV Un def ay live gars yi ngir waxtaan point mercato mais aussi le débrief des matchs wax ci point yu bëri nag donc abonné leen ci chaîne TikTok bi eSport TV 1 la Instagram bi eSport Inter dinañ def live ci TikTok bi def live ci Instagram bi aussi abonné ci chaîne chaîne bi di Baba Show laata boobu également Lamine Yamal Gaye il sera opérationnel Gaye hein. ah si est ci premier match du championnat pour FC Barcelone moom i nga papa nag papaam dafa dañ ko jamono ah, jox détail mi ngi ci baabu show ko histoire bi la demain et tout donc moom finalement il sera opérationnel pour jouer demain moo monde Mundo Deportivo bi daal di todos kon Lamine tous avec Lamine Yamal comme vous le voyez sur cette image Hein? Lamine Yamal donc le joueur l'attaquant vedette euh, du euh, FC Barcelone et justement ki xam na Danilo Pereira le joueur portugais du Paris Saint-Germain Mom nak ne nañ ces dernières heures dañ ko proposé ni di FC Barcelone loolu lañu wax notamment son agent Mendes mi nga xam il est très réputé dal moo proposer proposé FC Barcelone ki nga xam nak moy donc kii di Endrick xam ngeen ne euh, Bellingham daf ko don togn nan ko bamos euh, Bobby parce que mo dafa ne Bobby Charlton moy idoolam tam mu fekkewu ko judogul. Euh, li mu nga xam ne donc tweet bob nak def na 172000 vues dix mille réponses ci tweet bob nga xam ne di Jud Instagram et tout pendant ce temps Rodrigo il va rester en tout cas du côté du Real Madrid cette saison facile fenn assuré rassuré également supporter merengue malgré l'arrivée de Kylian Mbappé pendant ce temps Yacine Atli joueur formé du côté du Paris Saint-Germain et du côté du Milan AC Milan nak ko eh, pour l'instant actuellement plutôt pour le am ah, koppar ci gafa gi ndax libérer ngir également renforcer yenn ci équipier. qui équipe également Chiesa, le joueur donc euh, de euh, je Juventus de Turin Warnalenko Milan AC ñi ngi continuer di insister ci pour da di koy recruter Chiesa qui ne fait plus partie donc euh, du plan de Thiago Mota. Mondal Fimini, fi ni mon ko wa Milan teg seen gët gars yi lii nag mooy donc Opelak Opelik plutôt moo ko génne Opalic moo ko ne li dal moo nar a blouson yu suñu gaynde yi jëm ci nga moy donc euh, li di compétition yi dara a blouson bi mo nek ni avant goût la donc design bi la wara am li nak moy nek euh, match d'entraînement plutôt maillot Dan Tremoy, Avamachi, nidal la nara mel donc lii daal mooy projet Puma donc Opalic daal di koy mom xamné nga xam ne aussi dafa spécialisé yenn fuite yi daal lii concept équipe nationale du Sénégal moy nak bu génne nañ ko won Habib l'ancien entraîneur de Red Star heure bi ñu bari jàppoon nañ né euh, waron na fek muy entraîner club wala bok mu togo Red Star mun yoblé né D2 mais dal fimné ni il est sans club mais loolu du tardé ndax championnat bu commencé sax da nga gis léegi ñu né dàq nañ benn entraîneur Habib Beye la jël donc lui il garde toujours espoir pendant ce temps moom moo ne arrêté carrière am

Euh, de OCR ne compte Milan jaar fi de daal di dellu si jamono ji sans club qui est di Sécoumara. Mara waxon na len Lens mi ngi y insister mais jamono ji Strasbourg mo nek donc de insister pour recruter le joueur français d'origine sénégalaise Sekou Mara joueur de Southampton qui nak également di Pathé Ismail 6 le petit frère de Salou 6 mom nak Panathinaikos mo ci intéressé wu def nañ proposition du côté euh, de ki nga xam donc euh, Rayo Vallecano mais Rayo Vallecano d'accord ak ñom ñi ngi aux alentours de 12 à 15 millions saison dix de dem démarrer mais ba on espère Mon hein, mom nga il va quitter qui que dit donc Youssouf Sabaly Sabali il devrait être titulaire demain pour le premier match de li nga xamné donc Real Betis ce week-end bi donc il devrait être titulaire le joueur bi nga xamné man ba légui dama bagn li équipe nationale carrière on a besoin de lui on espère qu'il va revenir les amis li mu kon information ñu jox c'est toujours un plaisir hein, de vous servir di leen na gars suba la live il est commencer sur TikTok nañ ko def également chaque samedi sur Instagram pour Wartan.mercato actualité football et tout bu abonnez-vous abonné suñu chaîne Baba Show ak eSport TV TikTok bi e eSport TV 1 Instagram bi eSport Inter sous baxé ci bonus nous ñu la gay yi laissez vos commentaires lan ngeen xala ci live yeeg li nga xam euh, sujet yi débat a